rahmatullahi taala wa barakaatu nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi sëriñ Touba ñu ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér mu di leen fas yéene jottali kàddu yu bàyyi ci moom muy kàddu yu dalal leen jàmm ci dëkk bi di yóbbante am nuyoo ci seen kilifa yi leen fi yabal di sëriñ Mbay Caam ak kilifaam gi nga xam ne moo ko jox ndigal mi président de la république Macky Sall dellu di leen nuyu ci turu sëriñ bi di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen la yabal ci jataay bii tàmbalee ci Sidibé

ca dalal leen fi ci turu sëriñ bi di nuyu itam député Abdou Lahad Seck ak mboolem ñi fi teew ñëpp dégg nañ kàddu yi bu baax a baax ndax yàlla dafa def bi màggal gi jàllee ba weeru gàmm gi jeex ca rakk gàmmu wa ci la ko sëriñ bi yónni woon ci président muy lu jëm ci wàllu ndox mi ak wàllu assainissement bi mu xamal ko ne ko ndox mi bu dul woon ak université bi mooy sama yitte yi jiitu kon damay woo taalibe sëriñ Tuubaa yépp ànd koog ñoom ñu def ko ba dëkk bi am ndox mu neex te dootu manqué waaye léegi comme léegi day ay yitte yitte ju rëy yoo xam ne neexut a boole moo tax xamalal ma ko ne yitteel na ma ca màggal gii ñu jëm gii weesu ndox mi dafa manqué woon ca waxoon na ne fas yéene cee jëf wàllug assainissement bi it daaw bi màggal gi di dugg si ca CRD waxoon na ko ne leen màggal yi ñu jën yëpp ci biirum ndox lay doon kon mooy daanaka li nga xam ne moo agsi moom itam mu bëgg ci mu diggee ci wax ko la nga xam ne moom la ci nar mooy li nga xam ne moom la siini leeral léegi mooy forage yu bees yi surtout quartier yooyu nga xam ne dafa manqué woon ndox nee na bëri na sax ci quartier yëpp daanaka la waaye dañoo rawante bu mel ni daaru maan naan googu ñu tëdd waxoon na leen ko daaw mu ne mooy fi nga xam ne moo war a jiitu fii ne ndax li nga xam ne moo tàmbalee daaru maan naan jaar xayra dem ba Madiana mooy fi nga xam ne ñoo gën a sonn ci ndox donte nag quartier yëpp bala ba ci seen quartier yi sax yëpp ci la bokk fii ñu dëkke màgget gi daaw am nañ lu mat fukki fan ci amuñu ndox waaye côté bee mu wax nag moo gën a metti mooy kon nag lii ngeen tàmbuli mu teg ce ne damaa bëgg a def benn étude bu mag li pour li nga xam ne mooy réseau bi nga xam defee ne ci amee jafe-jafe ndax gis nañ ne lu nu yokk-yokk forage yi du yokk forage yi ci réseau bi nag baaxut doo am njariñ cee sëriñ bi itam ku sañoon kuy màggal si ku ne doo fi dikk ak tumuranke waaye màggal si ba noppi doo am loolu lekk ndax mbox ndox mi moom mooy togg doo am loo naan boo bëggee jàpp wala nga bëggee sangu it bu jafé la néna na loolu moom dafa diis ci sëriñ bi moo tax étude bii nga wax loolu moy li nga xam moy régler lépp bam baax comme nak agsi fofu sori na kon ñing koy xaar bam ak ak jam waluk assainissement bi itam. waxal ne dana ci def ñaar waxoon nañ dana ci def ñaar fukki milliards ren boobu yaakaar na ne bu ma juumut jallon na bu juumut jàlloon na assemblée ci bir loolu nag bi nawet bi sësaani tee nii sëriñ bi dellu ko yónni ci moom mu fàttaliwaat ko yooyu ak yeneen yi ñu war def ci dëkk bi li ci concerné ministère bi nag jox président joxaat ko ndigal laaj ko fu ñu toll mu leeral lii ci la ko joxe ndigal nekkoon nañ dem Touba vérifier ak xool yi nga xam ne ñoo gën a jàmp mooy lii nga xam ne moom ni la ko saax waxe léegi ministre bi it xamal na ko ne ñaar fukki milliards yi ñu programme woon bàyyiwuñ ko waaye xam ngeen ni réew mi demee ak li xew ci àdduna si motax mo am tardement. ci programme bi di ben bo xam ne dem na sax yaakaar ba jege téeméeri milliards lépp. boo loo xam ne na ne dem na ba jégué téeméeri milliard waye ñaar fukk milliard moy li ci gën a jàmp. ñaar fukki milliards yi li nga xam mo gëna gën mu nekk ben programme. kon lolu ñi ngi koy rafetlu bu baax. di soññ it gaañu saaxo mu di nga xam lim na ko ci assainissement OIC bi. bi. yàlla def na. ndax yàlla def na. bi ma ko njëkkee bi nga xamne ñek na ko xalat xalaat. boobu Cheikh Sidi Moukhtar moo fi nekk. biñ ci waxtaanee. biñ ci waxtaanee. Mansour Faye moo yor loolu. ñu wax ci. ndax booba la doonoon illa ji dëgg-dëgg. ndax booba ji nga xam amut ay wanag. te mu yëg ci wàkk Sëñ Tuubaa. bëgguñu woon ay foos ne ci biir jumaa ji eh, ci la architecte bi ñu xoolee. architecte yi bi ñu xoolee. ba xool ne faaw foos yi eh, fu jege yomb ñu xoolee ne faaw foo xam ne jege na pour def foos yomb yomb fi. ci la ñu xalaatal loolu. ci la ñu xalaatal loolu. ci laa jëloon dossier bi. waxtaan ci ak Mansour Faye. mu wax ma ne incha allah. sama projet bopp. danaa ci waxtaan ak président ba mu noppi danaa ko topp ba mu noppi ba mu sotti kon nag yàlla def na ak si na fii kon fekkewu ko waaye ñu ngi ko ciy gërëm bu baax sonnoon na ci lool bañ signé ko ba liggéey bi tàmbali waaye eh, saako danaa am tuuti lu ma la fàttali mooy Touba mooy dëkkub sëriñ Touba la. lu ngeen fii def sëriñ bi ngeen koy defal. lu ngeen fiy def sëriñ bi rek ngeen koy defal. waaye sëriñ bi li ngeen koy defal it. taalib yi ñoo koy jëriñoo. ndax lu mu ci mën a doon rek sëriñ bee ci gën a néew la. ndax bu ñuy wax dëkk bi. taalib yi ñoo tax. kon li ñu leen di defal. muy àgg ci ñoom. muy àgg ci ñoom. waaye itam. waaye itam. am na ci loo xam ne. am na ci loo xam ne. mat naa gën a bàyyi mat naa gën a bàyyi xel. booy jëflanteeg nit. ndax booy jëflanteeg nit. ak wegeel da caa baax. ak wegeel da ca baax. ndax mëno ñëw ci dëkk. ndax ñëw ci dëkk. def fa projet bu tok nonu dëkk ba xamuñu nga xamni dëkk ci dëkk bi sax xamuñu projet ba num débé man mii di wax ak yeen man mii di wax ak leen ci. ca maa ko lijjanti woon. Abdoulahat Ka xamu ci dara. serigne bi nga xamne mako wara leral serigne bi nga xamne mako wara leral ko ci tane. assainissement population bi ci dëkk bi. ndax loolu kon dimbale wut président bi ngeen di jëfal. ndax nit boo koy dimbale. la nga koy jëfal dafa war a leer ci ña nga koy jëfal. ndax ñun ñi nekk ci kanam. leerul ci ñun bay leer ci taalibe yi ne ci dëkk bi. ca dëkk bi itam. dafa am nu mu bindoo. féppay farata. waaye priorité bi. waaye priorité bi. moy tàmbale ci juma ji di wër. quartier yépp tollo ñepp yam ci waye fiñ tollu toll bo joxaté fi mu toll nii boo ñi ngay défal xamul te ñi ñen défal man nga andi ak défar té fekk li nga doon défar ak yaqalé bu jju néna man woo mi wona la yoon. bo gisé ma leeral ko. laaj na ko ci lopp ñett yoon. laaj naa ko ci lu ëpp yoon. waaye bu ma ko bu ma ko tontu. loolu dama koy wax ñëpp xam ko. ba ci ëpp fukki fan. ba ci ëpp fukki mu ne ma danaa la woowaat waaye tontuwaatuma. kon maa ngi yéen a ci yem. kon maa ngi yéen a yooyu nag daa bëri yu ñu koy def. te loolu euh, dugg wegeel. te loolu du dimbale seen kilifa dimbale seen kilifa yi ngeen di liggéeyal. ndax kilifa boo koy jëfal. bu ngeen agsi wut ci man bu ngeen agsi wut ci man jaar ci Abdou Lahad jaar ci Abdou Ka. wala ngeen jaar ci député yi. wala ngeen ci député yi. wala ngeen ca war a xam-xam. loolu daal naa bàyyi xel bu loolu war naa mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. ci liggéey ci liggéey. njàmbat li bëri na ci. li bëri na ci. ci projet mel noonu yu bëree bëri. ñun duñ toog ci rajo bi ñun nag duñ toog ci rajo bi di wax. ndax euh, kilifa. ndax kilifa. bu fekkee boo waxee moom mu dégg la do tok ci radio di ko weer. doo ci ndax lolu ndax am ko moom. am nañu ma agge ko ni ma ko rek la xek ak sama xarita. waye duma and ak nit ci lu dul ma lu rek nak la xam ci mom waye nak liggey Serigne Touba bi nak fi ma nek day yefi jambu kon lum ci don rek. kon lum ci don rek. daa war di leer ñuy xam nam demee ñuy xam nam ba ñañ ko war a leer a leeral ko waaye entreprise ba koy defar waaye entreprise ba koy defar suñu yoon néew ci suñu yoon néew ci ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet ba xam kum doon ba waaye la ñuy liggéey moom ndegam ci dëkk bi la jëm bi la jëm ca sëriñ bee tax bu ñu leerul bu ñu leerul nga xam loo la boo loo xam ne loo ci laaj kenn tëniwu la ci loolu nag moom neexut a firi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax والسلام عليكم ورحمة الله